di sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam ziyaare leen ñu ñëwaat ak yéen ci seen waxtaan yu am solo yi ci àddinu xaq euh, mu mel ni mën nañ wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun alquran moo nu ko waxoon su fekkee kenn jóge na ci yéen ak ku mu doon ak fu mu doon ak nu mu demee rek ñu wax ni musiba boobu ñëw ci ñun ñu wax ni ci yàlla lañ jóge ci yàlla lañuy dell mu ne ulaayika alayhim salawatun min rabbi wa ulaayika humul muhtadun yàlla subhaanahu wa moo bind jaam ñépp bind leen ci min nafsin waaxida wa jaala minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu llaha alladi tasaaluuna bihi wal arham inna allaha kaana aleykum raqib yàlla moomu bind ñu ñépp ci benn bakkan maam aadam xawa def ñu am njaboot di sëyante pour nation juddu ci yàlla subhaanahu wa taala nee na loolu tax ñu nekk ay bokk donte ni yewwoowuñ ci benn kër nekkunu ci benn dëkk nekkunu ci benn réew waaye ñu ñëpp ñu nekk ay mbokk ndax lan ay uxuwa fillaa lan mbokkoo ci wàllu yàlla subhaanahu wa taala waaye te mbokkoo ci maam aadam alayhi salaatu wassalaam mbokk yi loolu waral <clears throat> yàlla gis nga foofu bi mu tuddee mbokk sax daf ni ñu ragal yàlla ñu ragal yàlla ci mbokkoo googu kon loolu li muy tekki mooy jullit ñépp ay mbokk lan waaye jullit ñépp benn bopp lanu wolof nag dinay wax benn bopp kenn mënu ko xar ñaar kon li waral nag inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mooy jaare ci tudd ku fes kun xam ci diine ku xam ci ci ci jom ku xam ci askan ku xam ci kuy dimbali nit ñi waxtu wu nekk muy asayid muhammadul Lamiñ Ñas Sidi mooy sa mooy sang waaw ah, ñu bari Sidi Lamiñ Ñas waaye Sid ak ah, sa yët Lamiñ Ñas mooy tur wi ñu di ko jaale nag umma islamique bépp di ko jaale itam Ahmed Khalifa Magam ñu ngi ko koy jaal bu baax waaye tam di ko jaal Cheikh Ahmed Tijani ak i rakkam yépp ak i magam ñu ngi leen koy jaal di ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla na na rëcc lu fi doon def yàlla na dee di noflaayam te am nanu ci yaakaar mbokk yi jëf nit da koy rafetal ndax bu bis ñëwee bu bis ñëwee tey koo doon nit wolof dinay wax ni mën na fay yu lépp ba mu des suul bu ñaaw parce que kenn xamul ku lay denc kenn xamul ku lay taxaw moo tax ki am taxawu ci sa kanam ñu defar ko ba mu jekk yóbbu ko denc ko kooku yow mën nga ko ñee ndax loolu amul ñu des ci bato la joolaa am na ci ñoo xam ne tey kenn taxawul seen néew suul leen amul ñu dee ci accident ba nga xam ni kenn mënu leen waajal suul leen amul ñu lakk ba sey ba kenn mooy yow kan nga ci xamuloo ko xamoo ban nga ci kon ki nga xam ni génn na àddina ci kanami njabootam am na koo xam ni euh, euh, defe na ko àll kenn mënu ko indi ñu obligé tenc ko foofu ci yenn condition ci yenn situation xamuloo kon waxtu wu nekk nit li mu teg bëtam mën na sant yàlla ci loolu muy njabootam téye sa jur defaral ko sa bopp dencal ko sa bopp loolu doy na sant yàlla beneen bi ci des nag mooy seede yi ma wax mbokk yi seede dëgg la ci ki génn àddina waaye tam seede nanu koy deflante ci buy nuy dund dinaa wax ni réew mu neex a dee ngi nii waaye naqaree dunde tey ki génn àddina seede yi yonent bi moo ko sàkku salaay sallam moo wax ni bu nit génnee àddina ne ñépp seede li nu xam ci moom su ko defee malaaka yi dañu koy jël yóbbu ko foofu sax yàlla wax na ko ni ko soxlawula xam ñaawtee fi ki dem loolu li muy tekki mooy yàlla dafa am yërmande ci nit ñi ba lépp luy dox ci seen diggante soxlawu ko tey kenn ku nekk ci ñun njabootam dina toll foo xam ni boo koy boole ak way juram sax su la ko waxee ak su la ko waxul jéppi na la kon loolu dafay tegtale ni yàlla la mu waxoon ni rek sabaqat min rahmati rabbik waaw sabaqat min rahmati rabbik xamul nu muy def ndax yërmaande sunu borom subhaanahu wa taala daf ko jiitu ci ñun kon mbokk yi loolu lu am solo la moo tax foofu la ñuy waxee ni seede yooyu nga xam ne dinañ koy defal aji dem ji waaye ñun ñiy dund nañu koy defante parce que dina tax dina tax cofeel yokk waaye dina tax góor góor lu yokk waaye dina tax nit ki tam xel ni moom kat mi ngi def lu baax waaye war na ko yokk loolu dafa am solo loolu dafa am solo te ñun suñuy dund gis nga moo tax yàlla fi muy waxee jëw nga jëw sa nawle danger bi ci nekk nekkul sax ci nga njaalo ak nit njaalo woyoful de mais jëw moo jéggi dayo moo xaraam bon ba jéggi dayo moo tax euh, boo demee ci saar bi yàllay misaalee ni euh, an yuhibba ahadukum an yakula laxma axihi mayitan fa karrihtumuhu wattaqu llaha inna allaha tawaabu rahim yàlla bu demee ba ni bu ngeen di jëwante kenn jël sa benn naw nawle di wax ci moom lu ñaaw mu ni dafa mel ni ñu jël kenn ci yéen mu dee ñu indi ko tegal leen ko mu nekk sur le plat ku ne yor fourchette ak paaka di dagg di lekk allahu akbar mu mel ni dañ ni ko déedéet waaye gis nga aaya boobu ca kaw fa mu commencé yaa ayyuha alladina amanu ijtanibu kathiran min azanni ñu ni ko lu tax mu ne ndax inna baax baada zanni ismun moytu leen moytu leen njortu lu ñaaw tey ñun sunu dund xoolal lu nit baax baax nit mën na ñëw njortu dara wax ko yàq deram ba dootul xaj fi mu nekk léeg nit ñu sosal ko sos woo xam ni du xaj fi muy liggéeyee léeg nit ñu sosal ko sos woo xam du xaj fi mu juddoo léeg-léeg nit ñu sosal ko sos woo xam ni du xaj fi nga xam ni euh, euh, euh, mooy ci àddina bi sax ba mooy waral léeg-léeg nit xam nga fu nit faate bakkanam ak dund ni mel ci nit kon lañu ko waxal rey na mu ni ijtanibu kathiran min al-dhann ñu ni yàlla lu tax ñi wattu njortu lu baax mu ni inna baada zanni ismun ndax njortu lu ñaaw euh, bakkaar la ci lum lay yóbbu nag wala tajassasu wala yaqtab baadukum baadan a yuhibba ahadukum an yakula laxma axihi mayitan fa karihtumuh day dem ba yóbbu ci nit ki mu yëddu nit xam nga tey gis nit rek saa yoo ko gisee mi ngi correct mu ngi mel ni mu war a mel wax li mu war a wax dem ñibbi yow nga dem ba daan ah kii daal war ta mel nii xam naa ni boo demee nangam gis nga loolu yóbbule ci ba léeg-léeg nga nga di ko enregistré léeg-léeg nga di sàcc di ko filme et cetera te loolu moo xew ci àddina bi di dugal ci internet bi ak di def yeneen su ko defee nag loolu daf ñu yóbbu ci ay musiba yoo xam ni kenn xamul nu mu toll moo tax ma ni sunu réew mii dafa naqaree dunde waaye dafa neex a deewe tey kiy dund lu mu baax baax nay kilifa diine nay kilifa étatique nay kilifa ci wàllu wi mu féete nay nay nay doo gis ñu waxal ko lu baax ñi ngi sos di ko waxal di ko yabal ay mercenaires di ko di ko di ko yabal ay jigéen yoo xam ni pour que rek nam moo ci lu may yàq deram tey internet bi boo ko ubbi woon tey amul kooy ndamoo ci mbaax te du waxal nañ ko musiba amul koy ndamoo ci kilifteefu àddina te du waxal nañ ko musiba amul koy ndamoo ci wëyju ak njaboot te du waxal nañ ko musiba loolu nag yow mi koy def yàlla ba muy jeexal aaya ba daf ni wattaqullaha ragalal yàlla tey tey tey bi nga ko déggee rek nga bàyyi ko ndax inna allaha tawaabu rahim yàlla ku daw ñëw ci moom ni ko man de maa waxoon ci diw nangam ci internet bi maa ngi jéggulu waaye itam woo diwit jéggulu ko ndax li garaaw mooy yàlla soo ko tooñee moom subhaanahu wa taala soo tuubee mu jéggal la waaye bu dee danga wax ci deru nit lu ñaaw yàlla mënu la ko jéggal moo tax euh, ma Euh, lépp lu nit def ci digganteem ak boroomam mën na bañ a diis ndax yàlla moom boo nee astaghfirullah mu dëggu ci yow làmbooy tuub ya ñëw muy nadamu ala ma fata yatruka al maasiya fi saatiha in kaana ak yooyu rek euh, su ko defee yàlla baal la waaye su fekkee da wax ci nit sa nawle yonent bi nee na iyaakum wal riiba fa inna al riiba min al zina maa ngi leen di wattandikuloo jëw te jëw du sos de nit ñun dañuy sos ñëw waxal nit ni ko def na nangam te fekk defu ko mais su fekkee nag li mu def nga ñëw nettali te kenn laaju laajule ko wala fekkewu ko moom ba mu koy ba nga koy wax loolu mooy jëw nit dina rafet nag dina ñaaw te bu rafet bi sax moo tane parce que li mu tanee mooy nit mën na ca mën nga ñëw ni diw de ku baax la dafa fekk fee ay nit kenn ku ne mu jox ko dépense jox ko saaku ceeb ñoo ñooñu dem seen kër dund ci keneen ku yoroon ci poosam jug roy ca kon jëw boobu mën nañ ko comprendre moo tane waaye bi ñaaw bi diw dey ah ndekete guddi gu jot ma nga nekk ak jigéen guddi gu jot ma ngay génn baali guddi gu jot ma ngay nàngam te nu xam ko ci njub ak baax dina tax ku nekkoon ci njub découragé defe ni njub amul fekk fekk yow yaa génne loo war te génne moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni bu fekkee nag danga teg ci deram lu ñaaw jëw ko ca mu ni loolu moo gën a garaaw njaalo mu mel ni yow danga naan ndax njaalo dafa oyof ñu ni déedéet parce que njaalo wala taqrabu zina la alquran wax ñu ni lu tax bu leen ko jege ñu ni lu tax mu ni innahu fahisha dafa ñaaw lool wasaa assabil yoon wu bon la kenn warul dox sax jub ja maana bu nee palaas sàngam dafa am auberge bu nuy moye yàlla ñu ni la yow boo mënee di dévier ba doo fa jaar nga di ko def loolu mooy bañ ko jege su nee la njaalo ak jigéen dafa xaraam yow nga bañ ko jox loxo bañ wéet ak moom bañ seq ak moom loo xam ni dafay provoquer njaalo kon suñ la nee achaddu min al zina al ghiba achaddu kon liñ la bëgg a wax muy jëw dangereux na lu tax mu dangereux nag ak lu tax mu gën a garaaw njaalo mu ni inna rajulu qad yadni wa yatuuba fa yatuubu llahu alayhi nit su njaaloo mooy ak nit yàlla ba noppi ñëw jéggalu yàlla yàlla mën na ko jéggal mu ni la waaye wa inna saaxiba alxina laa yaxfiru llaha taala xata yaxfira lahu saaxib su fekkee su fekkee jëw la yàlla mënu la ko baal nga jàng fukki kaamil te jëwoon nga diw yàlla ne ah mënuma la baal de parce que yàlla dafa maandu bu fekkee da nga jëwoon diw nga def douze mille astaghfirullah yàlla baal ma mu ne ah baal naa la de bakkaar yi nga defoon njaalo ya fen ya moy ya et cetera waaye nag ah jëwoon nga diw de foog diw baal la allahu akbar su fekkee da def quarante ay yaasin yàlla maa ngi jéggalu sama bakkaar yi maa ngi nangam maa ngi nangam fanaan ci jàkka ji fanaan naafila fanaan def lépp luy njub ak ragal yàlla yàlla ne ah déet man de baal naa la li nga ma def yépp waaye nag danga nga tudd da nga tooñoon Seex Saar ah demal nga seeti ko nga ni ko moom mu baal la danga nga daaw de Miin demal nga seeti ko ni ko mu baal la man de dama waxoon ci Youssou nduur lu ñaaw mu ne la demal seeti ko moom mu baal kon allahu akbar ndekete ndekete jëw looloo tax mu gën a garaaw zina njaalo waaye du question que ne njaalo moo woyof déedéet njaalo lu bon la lu dangereux la lu ñaaw la waaye jëw jullit moo toll foo xam ni ah ku ko def moom ka nga jëw rek moo la mën a baal kon mbokk yi ñu bàyyee xel ni sunu dund gii dañ ko war a defarante ci njëkk dañ ko war a defarante ci mbaax diw baax na soo ko waxee teewul nga baax parce que kenn du loo arab ba waxoon kenn du joxe loo amut su nit nee diw baax na c'est parce que daf ko fréquenté ci mbaax yow tam baax nga kon mbokk yi ah loolu lañuy ñuy dénk sunu bopp dénk ko jullit yépp ñaan yàlla subhaanahu wa taala yal na nu yàlla jubal yal na yàlla def ñuy déggante baax mbooloom ku fi génn àddina yal na yàlla yërëm la yal na yàlla jéggal la rawatina nag ah ñi nga xam ne génn nañ ci at mi bokk na ca way juru euh, biraan bokk na ca sidi sayid muhammadul euh, lamiñ ñas mi sidi lamiñ euh, bokk na ca ñi nga xam ni génn nañ àddina te yëgunu leen wala xamuñu leen ñanu fa fekk ak ñanu fa fekk ñëpp yal na yàlla jéggal leen ja'alana allahu min alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsanahu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu